alaikum bok Sénégal ñu ngi len di sante di len gërëm di de jaajëfal di amaat mbégte mu reuy àndaat ak yeen ci vidéo ñu notre di defal manam jangatal programme de candidat yépp waaye programme tay bi li ñu koy programme bi nga xamante président Idrissa Seck président Idrissa Seck programme am mu ko 1 3 15 45 un Sénégal 3 axes programmatiques 15 visions programmatiques

bu ñu tàmbalee ci li nga xamante ni moom la wax gouvernance maanaam président Idrissa Seck dafa jàpp ni il faut que ñu amal ay coppite ci li nga xamante ni mooy constitution bi ak institution yi sartu réew mi ak kuréel yi nga xamante ne ñoo ŋànk li jëm ci réew mi bi ci jëkk mooy dafa jàpp ni président de la république képp ku ñu ko fal yow ki lay wuutu bis boo fi jógee bu mu doon sa mbokk donc loolu ñu def ko ci constitution té constitution bi aussi liñ ci yok bu ñuy agul ñu diko wax parrainage nee na loolu bu ñëwee fas yéene na koo dindi té constitution bi dootuñu ñuko soppi mukk lu ni dañoo jaar ci référendum manam laaj askanu Sénégal ku nekk yéey ci yàbbi ki ne d'accord na ki ne d'accorduma ñu xol lu ëpp ñu tëralee ko noonu té néna li nga xamante mooy conseil économique social et environnementale yi nga xamante ne Aminata Tall moo ko jiite nee na loolu fas dindi au conseil des collectivités territoriales li nga xamante aussi Ousmane Tanor Dieng beaucoup ko mais nee na aussi bu ñëwee fas yéene dindi waaye nee aussi fas de créer aussi beneen kuréel bu bees ñu di ko wax haute autorité de la démocratie maanaam lépp lu jëm ci politique Sénégal ci parti politique yi seen doxalin seen tëralin seen financement ak lépp lu jëm ci élection bi su boobaa kuréel moom mooy saytu non. lu aussi qui li nga maintenir ne moom les corps de contrôle corps de contrôle madame maanaam OFNAC bokk inspection générale d'État bokk ci ARMP bokk ARMP autorité de régulation des marchés publics Sentif, Sentif bokk Sentif ci CENTIF mooy li nga xamante cellule nationale de traitement des informations financières nee na kuréel yooyu yep fas yéene ci andi coppite waaye coppite bi ci mooy li wax inspection générale d'État daf ko nar a dolel waye daf koy jox benen tur bu bees maanaam ko vérification générale d'État jox ko ay doole jox ko moyen ba nga xamanteni dinañ mëna def seen liggéey ci anam ya nam gëne su boba at bu jot sa bu ñu defee seen rapport ñu jébbal ko président de la république jébbal ko président de l'Assemblée nationale waye bi ñu yem ci lolu dañ koy jébbalit askanu Sénégal manam rendre ko public ba paré concours de contrôle pour nous, nous permettre aussi mu saisir ki nga directement le procureur wala mu saisir directement le juge bi bu aussi lu ci député Sénégal législative aussi ce sera une élection à deux tours Madame député bu ci nekk yow sa fa nga circonscription

moom war na ci génnee li nga xamante ne moo di dafa jàpp ni président de la république yoonam nekku ci war na ci banque li nga xamante ne moo di loxoom ba nee na loolu na président de la république pour permettre justice mu am indépendance manam maanaam yoon boo xamante ne am libre liberté boo xamante daf koy permettre mu mën a acte chaque ak chaque fois ci li nga xamante ne mooy aqulaay deuxième point bi mooy wàllum économie président Idrissa Seck nee na ginnaaw bu mu wëree Sénégal yépp ne na baykat yi yi ak ñi nga xamante ñuy yëngutu ci walum pêche liñ ko sant ci aduna bi yépp nee na mooy dañu ko bés bu yàlla dogalee nga jël réew mi ñun baykat yi suñu mbébét bi gën a mag mooy dañuy bay ba pare li ñu bay des ci seen loxo duñ ko mën a jaay président Idrissa Seck nee na dafay jël engagement pour garantir li nga xamante ne mooy commercialisation bi ba nga xamante ne benn doomu Sénégal dootul bay

ba pare tamit mu ne entreprise sénégalaise yi yéen dama leen a beral loxo beral loxo gi mooy lépp li nga xamante ni dafa jëm ci commande publique yi laataa dara di xew damay jël cinquante pour cent ya teg ko ci seeni loxo ñu doogee wax leneen tey entreprise ci biir Sénégal yi nga xamante ne ñoom dañuy jël seeni bénéfice di jël di ci réinvestiraat ci biir réew mi pour mëna créer yeneen emploi yeneen doomu Sénégal mën cee jëriñu né entreprise yooyu daf leen di ay allègements fiscaux maanaam la ñuy fay ci impôt dafa am loo xamante ne mën na leen leen mën na leen ko see baal ñu wàññi leen ko tuuti ndax ñoom dañuy jëlaat seen alal di ko duwalaat ci biir réew mi lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale président Idrissa Seck nee na bi mu wëree réew mi li mu seetlu mooy liñ koy jooytu mooy entreprise yi ak bérébu jàngukaay yi lañuy jàng

boo xamante ne bépp doomu Sénégal ak foo mën di ki dëkk tawat jafe-jafe boo mën di ki am ak feebar boo mën di ki am mën nañ laa faj fa nga dëkk te loolu mooy li nga xamante ne mooy li yoon te nee na li nga xamante ne moo jëm ci ressource naturelle nee na bépp contrat boo xamante ne état wu Sénégal signé na ko nee na moom président Idrissa Seck bés bu ñëwee contrat yépp danañu ko càmbaraat lépp loo xamante ne nekku ci intérêt Sénégal danañ ci reveniraat

nee na li nga xamante ne mooy lu jëm ci wàllum njàng wàllum faju wàllum dem ak ñëw ay infrastructure yooyu noonu nee na fu mu dem loolu lañ koy jàmbat te gis na ni yemale lépp ndakaaru rek loolu du solution bi ndax ci biir réew mi fu nekk war nañ faa def dara ba fu nekk doomu Sénégal ya nekk foofu noonu di gis seen bopp ci doxalinu réew mi looloo tax mu ne commune bu nekk fas yéene na fa investir un milliard bi ñuy mujjee muy wàllum sécurité maanaam kaaraange nee na bés buñ ko falee bépp doomu Sénégal ak lépp loo am fas yéene laa sàmm sàmm la nga am ñoŋal ko nee na ñi nga xamante ne ñooy policier ak gendarmerie dafa seetlu ne seeni effectif matul ñoom dañoo nekk ci ay jafe-jafe yoo xamante ne fas yéene ne yokk seeni effectif fas yéene leen jàppale ci wàllu formation bu wëlbati ko ci loolu jox leen ay jumtukaay yoo xamante ne dinañ mën a def seen liggéey ci anam yenam ware sàmm njaboot wi sàmm askanu Sénégal nga xam ne ñëpp dinañ kontaan dinañ gis seen bopp ci réew mi ni muy doxalee mbokk yi ci gàttal ci tënk loolu lañu leen andiloon ci programme ki nga xamante ne mooy président Idrissa Seck dinañ ko def ci programme candidat yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ba beneen yoon bu ci suñu borom àndee jërë ngeen jëf